revue de presse bii ñoo ngi ciy ànd ak Serigne Khadim Mbacke général. Serigne Khadim Mbacke général nag Serigne lasraar bu yàlla may la lasraar nag bu ñu ko waxee ëmb na lépp moom yàlla may na ko lool ci wàllu seet. wàllu listixaar ak wàllu noob waaye tamit am na tawat yu sonal askan wi bu ci mel ni hémorroïde ndoxum siti néew kattan ci góor ñi ma ko sañ a wax loolee moom xam-xam bi mu ci am doy na waar lool waaye tamit sëriñ bi dafa am jaaru yu doy waar yu mu am waaye tamit buuru kër gaa nga fa muy ñi nga xam ne dañoo néew kattan ci wàllu sëy waaye tamit am na cangat yu baax yoo xam ne am na ko moo xam nga nekk fii ci réew mi wala ci bitim réew ni ngay def pour jokkoo moom nag lu yomb la da ngay woote ci numéro bi 77 citoyen 67 67 képp ku jokkoo ak moom yàlla sa ajo faju laata ñuy door revue de bi ñoo ngi wéy ba léegi di leen présenté application bi tudd Sofascore Sofascore nag day yëngu ci wàllu tàggat yaram rawatina football bi moo xam match yuy daw en direct ak programme yi ñu dëgmal boo ko amee dara du la ca ump incha allah ni ngay def pour am ko nag lu yomb la lii application bi dinañu ko def ci commentaire yi waaye tamit moo ngi ci description bi soo ko jaaree foofee téléchargé ko yaa ngi dimbale King Ouse et Ngary TV waaye kat ca jamono joojee di nga ca jëlee ay xabaar yu wér woor kon daw leen ngeen jaaree ko ci lien bi téléchargé ko bu boobaa rek yéen a ngi dimbale King Ouse et Ngary TV waaye tamit boo téléchargé li gën moo di nga bañ ko désinstallé maanaam nga bañ ko dindiwaat ñu door revue de presse bi dooree ko groupe Futur Média fekk fa record yéene kay Pape Matar Sarr la surnal bi fësal ca wu njëkk wa doomu Sénégal bi nag démb dafa amal jaloore këlëbam di Tottenham dañ doon jàkkaarloo ak mën Manchester City bu Pep Guardiola loolee nag huitième de finale Carabao Cup la soxoloon ci ndaw ga nag Tottenham moo am ndam ñaari bal ci dara tax journal Pape Matar Sarr sukkaloo na waa sa City bu Pep Guardiola ñëpp jébbalu nañu li ko waral moo di bit bu rëy bi nga xam ne doomu Sénégal bi dugal na ko tax clubam qualifié ca quart de finale Carabao Cup ba démb huitième de finale lañ doon jongante waaye doomu Sénégal bi kenn du moom ca match boobee dafa départ titulaire doxal moom Pape Matar Sarr journal bi tamit ñëw na ci équipe nationale bu Sénégal xam ngeen ne jamono jii amuñu coach ndax ki fi nekk dañu ko ko dénkandeegum muy Pape Bouna Thiaw candidat ñoo ngi ñëw bu baax am na candidat yu bari yu ñëw ngir nekk coach fii ci équipe nationale bu Sénégal mën nañu cay lim Pape Fall Pape Fall nag ay jamono daan na football ci équipe nationale bu Sénégal jamono ji ma nga ci réewu France di fa dund football moom nee na bëgg naa ñëw tàggat équipe nationale bu Sénégal kon ci candidat yi la bokk ñaari doomu France yi tamit ci kàndidaa yi la ñu bokk muy Hubert Velud ak Philippe Montenier bu dee Ibervelut moom miin na lool Afrique ndax fu bari jaar na fa mën nañu ci lim réewu Algérie waaye tamit ci réewu RD Congo club bu mag ñu naan ko TP Mazembe tàggat na leen jamono jii may wax ak yéen nag ma nga ci réewu Maroc club bu ñu naan AS Far la fay tàggat waaye tamit réewu Soudan jaar na fa moom Ibervelut bu dee Philippe Montanier moom tamit dafa bëgg nekk coach su fii ci équipe nationale bu Sénégal moom nag mosul ñëw fii ci Afrique maanaam mosu fee yor benn club waaye tamit mosu fee yor benn équipe nationale waaye club bu ñu naan Toulouse Real Sociedad ak Rennes tàggat na leen moom Philippe Montanier waaye jamono jii nag candidat yi bari nañu lool waaye nag équipe nationale bu Sénégal fédération bi bëgguñoo sorko sorko ay mbiram li ñu bëgg moo di wut coach bu mag étranger lay doon wala ku dëkk ci réew mi maanaam ku fi dëkkul lay doon wala ku dëkk ci réew mi loole nag xamaguñu ca dara waaye jamono ji moom fédération bi li ñu bëgg moo tànn wut coach bu mag dénk ko équipe nationale bu Sénégal journal bi tamit ñëw na ci waa AS Pikine ñoom nag bërki démb ci ngoon gi la ñu dàq ki leen di tàggat mi ngi tudd Joseph Senghor waaye kat mbir moomee am na lu ca laxasu ndax kat door championnat football ñaari match képp ñu dàq est-ce que mbir mi nekkul woon lu ñu programme maanaam est-ce que nekkul woon lu ñu waajal ndax football ñaari match benn ba nga am ca match niil benn ba nga am ca defet rek ñu dàqala loole dafa mel ni lu ñu programme loolu nag du samay kaddu kaddu journal bii di record yéenekaay la. ñu jugee Sénégal wutali Allemagne wàcc ca capitale ba di Berlin fekk fa kii kër Nourou Sayin mi tàggat Borussia Dortmund la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag jamono jii mi ngi ci pression bu mag li ko waral moo kat ëllëgëm ca Borussia Dortmund mi ngi wéy di takku suuf ndax ñetti defet la tegalee bu yàggut dara dafa jàkkaarloo ak Real de Madrid mu duma ko duma yu mitti lool ba mu ca jógee jàkkaarloo ak Augsburgo loolee mi ngi soxaloon Bundesliga ñu gañe ko ñaari bal ci benn bërki démb da doon jàkkaarloo ak Wolfsburgo match boobee nag mi ngi soxaloon Coupe d'Allemagne waaye ab défaite la ca jëlee kon ñetti défaite la tegalee semaine bii di ñëw nag day jàkkaarloo ak RB Leipzig match boobee bu ca amee défaite rek ëllëgëm ca Borussia Dortmund dina takku suuf lool moom nuru Sahin jamono ji nag ak waa Borussia Dortmund journal bi tamit ñëw na ci waa Bayern de Munich ñoom démb dañu doon jongante coupe d'Allemagne Mayence lañ doon jàkkaar lool ñeenti bal ci dara lañu ko gañee match boobee nag kenn du ca Jamal Musiala ndax ci premier mi bi ab triplé la amal maanaam ñetti bit la dugal moom nag ba mu dalee takk godaas ak tey jii match officiel mosu caa amal ab triplé kon amal na triplem bu njëkk moom Musiala nekk gone gu footballub Allemagne am ci moom yaakaar ñu jóge Allemagne wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Ruben Amorim mi waa Manchester United bëgg mu tàggat leen la surnal bi fësal ca wu njëkk wa maanaam futur coach waaye nag ba léegi mbir mi mi ngi bloqué wu li ko waral moo di waa Sporting dañoo bëgg waa Manchester United jox leen ab xaalis ndax waa Manchester United dañuy fay clause bi bàyyi Ruben Amorim ca Sporting mi ngi toll ci dix millions loole loolee waa Manchester United bañuñu ko waay Ruben Amorim li mu xamal waa Manchester United moo di man su may ñëw sama staff yépp lay àndal maanaam ñi may jàppale fii ci Sporting dama leen bëgg indiwaale foofee ci réewu Angleterre ngir ñu jàppale ma waaye jamono ji waa Sporting nee ñu ñooñee du ñu leen bàyyi te Manchester United defu ci tuuti ci ab xaalis ndax waa Sporting nee Manchester United su ngeen bëggee ñu bàyyi staff bi lu mu gàtt-gàtt jox leen ñu quatre millions d'euros wala trois millions d'euros kon daal suñu boolee lépp war naa mat quatorze millions d'euros loolee la waa Manchester United war a génne jox ko waa Sporting ngir Ruben Amorim jógee foofee ca Sporting dem ca Manchester United doxal jamono ji nag mën Manchester United ñoo ngi liggéey ci mbir moomee journal bi tamit ñëw na ci Carabao Cup bi démb am na match yu ñu doon amal Pep Guardiola ñoom toog nañu to Tottenham ànd ak Pape Matar Sarr ñoom la ñu doon jàkkaar lool mu gañe leen ñaari bal ci benn match boobee kenn du ca Pape Matar Sarr doxal na dugal ab bit bu dee waa Chelsea ànd ak Nicolas Jackson ñoom tamit toog nañu ndax Newcastle la ñu doon jàkkaar lool mu gañe leen ñaari bal ci dara bu dee Arsenal moom wulli yu mitti la ñu wulli Preston ñetti bal ci dara kon ñoom qualifié nañu ca beneen segg ba muy waa Arsenal ànd ak Mikel Arteta bu dee waa Manchester United ñoom démb duma yu mitti la ñu duma Leicester bu ñoom Jimmy Vardy juróomi bal ci ñaar Manchester United nag saison bi ñu nekk benn match mosu caa dugal juróomi bit démb ànd nañu ak Van Nistelrooy doxal dugal ay bit yu bari moom moom Van Nistelrooy sax mi ngi wax ca loole nee na man dañu maa dénk bi ne naa ko aidé maanaam naa ko dimbali sama liggéey képp laa def loolee la doomu pays ba xam le moom nag ci fàttali daan na football ca Manchester United waaye club bu ñu naan Real de Madrid tamit jaar na fa doxal. bu dee waa Liverpool ànd ak Arne Slot ñoom it ndam lu ama am solo la ñu am Brighton lañ doon jàkkaarlool gañe ko ñetti bal ci ñaar muy waa Liverpool bu Arne Slot. ñu jugee Londres Angleterre wutali Italie wàcc Rome ak Corriere dello Sport waa Juve bu Thiago Motta la journal bi fësal ca wu njëkk wa ñoom nag wàcc nañu démb dañu doon jàkkaarloo ak Parme match bi nag 2-2 la jeexee bu dee waa Juve nag dañu leen mëne ñaari yoon ci match bi ndax dañu leen mëne benn bal ci dara ñu égaliser 1-1 waa Parme dugalaat muy 2-1 waa Juve égaliser match bi jeexee 2-2 ci cëppaandaw ga nag ñu am match nul muy waa Juve ànd ak Thiago mi leen di tàggat jamono ji nag ñiil yu bari na lool ndax bi ñu dooree Serie A bi ak tey jii am nañu juróom benni match yoo xam ne dañoo témbo maanaam match nul la kon nag doxuñu doxluwuñu bu dee waa Inter ànd ak Inzaghi ñoom démb jàkkaarloo ak Empoli dool duma ko duma yu mitti lool ñetti bal ci dara jamono ji nag Inter mi ngi wéy di dëggal boppam ci deuxième place bi bu dee waa Atalanta Bergame ànd ak Gasperini ñoom démb ndam lu ama am solo la ñu am Monza la ñu doon jàkkaarlool gañe ko ñaari bal ci dara jamono ji nag Atalanta Bergame ànd ak ni ñoo jël troisième waaye Napoli moo jël pay Napoli moomee matcham bii di ñëw Atalanta Bergame lay jàkkaar lool loolee la journal bii di Corriere dello Sport xamle ñu jugee Corriere dello Sport de Milan fekk fala la Gazzetta dello Sport waa Inter la surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa belle réponse tontu bu rafet la waa Inter bu Inzaghi tontu waa Napoli bërki démb Napoli dafa jongante am ndam démb Inter doon jàkkaarloo ak Empoli duma ko duma yu miti lool ñetti bal ci dara loolee tax na jamono jikat waa Inter ñoo ngi dëggal seen bopp ci deuxième place bi waaye nag insa gi mi ngi artu Conte nee na ko maa ngi ñëw sa kaw te mbir mi jeexagut loolee la surnal bii di la Gazzetta dello xam le bu dee waa Juventus moom seenu défense baaxatul léegi ndax bi ñu dooree saison bi défense de fer la ñu amoon maanaam dugal leen ab bi dafa jafe lool waaye jamono ji moom li ñuy encaissé ci ay bit bari na lool démb Parma la ñu doon jàkkaar lool match bi 2-2 la jeexee loolee tax na ñàkk nañu troisième palace bi waaye Juve ñoo jël quatrième troisième place bi Atalanta Bergame Gasperini ñoo fa nekk li leen ko may moo di ndam lu am solo li nga xam ne am nañu ko démb ci kaw Lecce journal bi tamit ñëw na ci waa AC Milan club boobee nag jamono jii dañoo tiit lool ndax début saison bu bonee nii club boobee mosuñu koo amal te xamuñu ko li ñu bëgg nag moo di balaa yàgg ñu jóg ànd ak ki leen di tàgga tudd Fonseca jamono jii tiit nañu lool loole la surnal bii di la Gazzetta dello Sport xamle. ñu jógee Italie wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay moom jiyee ji am ci réewu Espagne ci la ñëw taw yu miti moo am foofee ca Espagne. ay inondation sonnal askan wi yépp rawatina nag ñi dëkkee ca Valence ak ci Séville sonn nañu lool ndox mi nangu na fa ay kër yóbbu fa ay bakkan yu bari lool kon nag ñoo ngi leen di ñaanal ci jiyee joojee ñu nekk yàlla teggit leen ko ndax nattu dëgg la mën na am nag match yu bëri ñu dàq ko rawatina Real de Madrid loolee samedi la ñu ko programmé woon waaye mën naa am ñu dàq ko ba beneen jëmmi jamono ndax ca Valence ak ci Séville ndox ma dafa bari lool naam taw bi ca Espagne la waaye ci ñaari dëkk yooyee la ëppee ñu jugee Marca yéene jël aas yéene kaay moom ci taw yu miti yi am caf Espagne rawatina Valence ak Séville ànd ak ngelaw yu miti lool ba am ay inondation am ñu ca ñàkk seen bakkan ëpp nañu cinquante personnes moo tax journal bii di AS yéenekaay ne yéen ñi mbir mi dal du ngeen wéet mukk dinañu ànd ak yéen du ñu leen bàyyi ngeen wéet ci mbir moomee àdduna gépp a ngi leen di jàppale te di leen ñaanal ay taw yu mitti nag moo am ci réewu France rawatina dëkk yi may waaja lim Valence ak Séville côté boobee sax am na match yu fa waroon am démb soxal coupe du roi toll ci sept match maanaam juróom-ñaari match match yëpp dañu ko dàq ngir taw yu bari yi nga xam ne am na ca wàllu woowee kon nañu leen ñaanal natt boobee yàlla teggil leen ko te match bi war a dox ci diggante Real de Madrid ak Valence di amee ca Mestalla loolee sam la ñu ko programmé soo moytuwul dinañu ko dàq ndax waa ligue bi maanaam ñi ëmb liga bi bind nañu fédération bu Espagne ne leen match bi dañu ko bëgg a dàq ba jëmmi jamono officiel agul nag waaye jamono jii li gën a jege moo di ñu dàq match boobee journal bi tamit ñëw na ci waa Atlético de Madrid ñoom nag tey jii dañuy jàkkaarloo ak VIC VIC nag ma nga ci Liga élite bi ñoom ñooy jàkkaarloo ak waa Atlético de Madrid Atlético li mu bëgg moo di doxal am ndam ca match boobee fàtte defet yi nga xam ne tegale na ko ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport moom it taw yu miti yi am ca Espagne ci la ñëw rawatina dëkk bu ñu naan Valence ak Séville ndax ñooñee la mbir mi gën a laal moo tax journal bii di esport di ñaax waa Valence gépp ne leen sijji leen xool ca kaw àdduna gépp a ngi leen di jàppale rawatina ñun waa Espagne jamono ji ñëpp a ngi jàppale Valence ak Séville ndax nit ña fa ñàkk seen bakkan bari nañu lool journal bi nee na 92 morts am na ca maanaam ñoo génn àdduna ci mbir moomee loolu nag mitti na lool waaye mondo sport bi mi ngi leen di jàppale bépp xeetu tàggat yaram bu amoon ca côté boobee rek dañu ko dàq moo xam basket la handball volleyball ba ci football lépp la ñu dàq démb am na ay match yu waroon am soxal coupe du roi ca wàllu woowee muy Valence ak Séville lépp la ñu dàq kon mondo sport bi mi ngi seen ginnaaw di leen jàppale loolee la sport xamal wa Valence. ñu jugee sport jël Mundo Deportes Deportivo moom it ci drame bi am ca Espagne maanaam mbir mu doy waar mi am ca Espagne ci la ñëw waaye nag fàttewul waa Barcelone démb nag Barcelone googee dañoo organiser ab añ maanaam daje ci benn restaurant ñëpp ñëw ñu nekk en famille waxtaan ngir gën a xamante gën a lëkkaloo doon benn di xàccandoo di dóorandoo añ boobee démb la ko waa Barcelone programmé woon ci ab restaurant loolee la journal bii di Mundo Deportivo xamle ñu jugee Mundo Deportivo jël l'Esportiu catalan moom ci derbi bi ñuy xaar dimas ci la ñëw super derbi Barcelone mooy jàkkaarloo ak Espagnol de Barcelone match boobee dimanche la incha allah ñaari club yépp nag kenn ku ne am na koo yaakaar bu dee waa Barcelone moom doomu Pologne bi ñu naan Robert Lewandowski la ñu yaakaar ndax kat moom Robert Lewandowski jamono ji kenn du moom ca Liga ba mi ngi doxal di dugal ay bit mooy ki fa ëpp ay bit waaye kat bu dee waa Espagnol de Barcelone ñoom seen góol bi tudd Juan Garcia la ñu yaakaar ndax moom Juan Garcia góol la bu mën li muy def te foofee ca Liga e-sport ba benn góol ëpp ko fa ay arrêt